Assane ah, Samb maa ngi lay lay fay bu baax di nuyu ñëpp. alors sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum politique ñu gis ni installation haute cour de justice soxal na loolu nag nguur gi fi nekk ba tax na nee nañ il faut que ñu am majorité ci assemblée nationale ngir mën a doxal lu ni mel ah, nan nga jàngatee ay kaddu euh, Elimane Diori ñi. waaw xam nga affaire haute cour de justice moom buñ koy wax ñaare Macky Sall la ñuy jiite loolu moom nëbbuñu ko te wax dëgg yàlla ñoo ñuy wax yëpp duñu ministre de la mais suñ soxlaa wax ko heure bi c'est parce que dafa am lu ci jublu bi Macky ne day nekk tëdd liste ba léegi daa mel ni gars yi dañoo xaw a yëngatu tuuti bu leen ragalloowul tamit xaw na leen yëngal moo tax ñu agité autour de justice du Macky rek ay partisans ci réseaux sociaux yi ay Fadilou Keïta ku ne yaa ngi wax mel ni yaay yaay yaay ministre wala yaay procureur mais en tout état de cause dama bëgg a leeral leen autour de justice quand même c' est vrai assemblée bu ñu koy rek dafa war a teg au coup du d' ailleurs assemblée bu passé dafa waroon def defu ko parce que loolu erreur la juumte la waruñu ko woon def loolu euh, waruñu ko woon def euh, waruñu woon bañ a teg au coup de justice parce que loi bi def nañ fois bu ñu tegee assemblée rek dans les semaines qui suivent war nañ teg au coup de justice boobu nag kan lay juger le président de la république en cas de haute trahison wala ki ñi nga xamante ne ñooy ministres yeeg yooyu waaw ñooñu la moom moo tax fa cour de justice jóg mais nag président de la république neexul ancien président parce que Sénégal dañuy jox président de la république euh, malaanu kiraay ñu koy wax immunité ci cadre liggéeyam maanaam bépp acte bu mu def ci cadre exercice fonction chef de l' état mënoo ko ci comme le procureur euh, ni mu amee immunité loolu la ñuy wax irresponsabilité pénale bu la jëlee tëj la te warul woon tëj sax kenn mënul woon nga ko porter plainte hmm. parce que loolu c' est dans le cadre de son travail loolu immunité boobu le président de la République am acte de gestion yi mu def yëpp dans le cadre de ses fonctions de président la bi mënoo ko ci def ça c' est l' article 101 de la constitution sauf maintenant bu président de la République defee haute trahison haute trahison rek dafa ba code bi nangoo ko définir boobaa. waa commission bi nekk ci haute cour de justice présidée par le président de la cour suprême ñoom ñooy xool acte yi nga xam ne def na ko te mu war a nekk haute cour euh, trahison te ñaare li ñuy wax haute trahison mooy boo demee intelligence avec l'ennemi nga dem mel ni ko jaay réew yi atteinte à la sécurité nationale euh, poser acte yoo xamante ni dafay mettre en danger le Sénégal l'intérêt supérieur du Sénégal euh, sur le plan sécuritaire sur le plan même l'existence de l'État mu ngi mel ni nga dagg benn parti daal di koy jox ñeneen waaw yu mel noonu exemple laa joxe na donc véritablement yooyu mën na jàpp ni haute trahison mais bu dee acte de gestion mën na ko ci topp beneen bi mooy immunité loi immunité dafa am boo xam ne moo permettre Diomaye moomu ak Sonko moomu ñu ñoo permettre seen i partisans ñu génn prison ba bokk ci élection euh, loi d'amnistie day effacer les faits de deux mille à deux mille vingt trois dafa donc ay yooyu donc président non seulement am na immunité mais am na loi d'amnistie bu am bu couvrir certains faits yi fi amoon mais aussi dafa am li ñuy wax privilège de juridiction mënoo tëb rek benn enquêteur mënu jot di di di convoquer président benn enquêteur mënu jóg di arrêter président loolu haute cour de justice rek moo ko mën a def c'est assemblée nationale en rapport avec le système judiciaire ñoom ñu xool nan lañ koy war a bu inculpé jote bu jàpp jote bu enquête jotee bu juge jotee bu tëj jotee ñoom kese ñoom na ko mën a. mu nekk euh, mbébétu euh, pouvoir bi euh, jamono ji fexe ba ñoom tamit ñu mën a rendre compte. ah loolu de moom mënul ñàkk moom reddition de comptes mënul ñàkk képp koo xam ne daal yoroon nga fi ay fonds publics moom il faut ñu surtout nag bu la rapport yi tuddee il faut que ñu seetu yow li nga yoroon nu mu demee du ñëpp la ñuy seetu bon par exemple ñi nga xam ne rapport yi tudd nañ leen c'est normal aussi ñu xool loolu lu mu demee. bu ci amee lenn loo xamante ne ay faute la dañ la war a dañ la war a teg ci yoon loolu moom mooy yoon euh, li jëm ci ñu ñoon yaroon waaye li jëm ci ñu yor ba léegi parce que fan yi gis nañ ni xam nga sénégalais moom sénégalais rek la euh, gis nañ fan yi ay coow Azer gis nañ fan yi ay coow ONAS yooyu yëpp dañ war a saytu lépp bañ a faral kenn wala kii si ñun la bokk wala euh, voilà kenn du ko topp kële si ñële la bokk dañ koy topp en tout cas il faut pas que reddition des comptes nekk règlement de compte mais ni ñu koy waxee ni ci élection nag moment élection moom day niru ay bund xataal ay tiital ay intimidé ay puusal ma ay boo ko fi defee boo boo ñëwee ci réew mi di nga xam euh, dinañ la jàpp yooyu affaire u euh, tiitalaate la ay xoqatal ak je pense que nit bu demee bay def politique war nga am fit bu toll nii euh, kenn waru laa mën a xoqatal ci lenn mm-hmm. léegi nag reddition des comptes Euh, d' accord nañ ci règlement de compte nañ ko moytu nañu bàyyi justice def liggéeyam parce que am nañ sax bañ nañ ko ba am nañoo pôle financier boo xam ne lu bees la ñu teg fa ñaar fukki magistrat juróom-ñaar ñu yore lépp liggéey lu jëm ci euh, enquête préliminaire instruction euh, jugement ak yëpp ñu jul ay collectif de magistrats teg leen fa ñeneen ñi war nañ téye seen gémmiñ xam ne ñoom bokkuñ ci système si des judiciaires boo demee sax xamuñ ci yoon dara ba pare di wax pour des raisons politiques parce que ñoom jàpp nañ ni wax yi bëri na ci wax joo xam ne actuellement li ko tax a jóg mooy affaire campagne électorale communication politique la mhm. communication politique la boo ko déggee day toujours day am ni ñuy wax lu tubaab di wax manipulation fexe ba yow nga gëm nit ki weddi kee kii wax fexe ñu gëm ko weddi ki mu jàkkaarloo loolu mooy manipulation politique te genre genre ñaare li jëm nag ci li nga xamante ne euh, mooy euh, campagne de levée de fonds ñu gis ne euh, moom Elimane Diori ñi fi mu toll nii moom la lancé ci jamono joo xamante ne nag ñu ngi gis débordement fleuve Sénégal Bakel Matam ak yeneen i gox nekk ci ay jafe-jafe ana nan nga jàngatee mbir mi. waaw damay bokk damay jàpp ni ñaar yooyu bokkul xam nga. gérer affaire état bi ak def say activité politique ñaar yooyu euh, euh, bokkul euh, lii du tee ñu def lee parce que comme nee nañ sinistré yi Matam Bakel ministre de l'intérieur ñu nga foon autorités yi déjà gouverneur préfet ñoom tout le temps ñu ngi si wetu population yi ak sous préfet yi et cetera ak administration bi yëpp ñu ngi ci maire chef de village chef de quartier ñu ngi ci wetu population yi mais le ministre de l'intérieur le ministre du marché le premier ministre nee na day dégager huit milliards pour ñoom donc suñu dégager huit milliards dina mën a jël en compte seeni besoin xool nu ñu leen di recaser bu laajee defaraat kër yi ñu defaraat ko bu laajee ñu def yeneen digue de protection ñu def ay digue de protection mais xaalis boobu bu ko dégager teg ko def ko ni ñu ko war a def war na mën a nekk ab solution loolu bokkul ak lii parce que politique bi dafa ñëw campagne bi ñëw na boo campagne dañ lay gagné te buñ la gañee nga perte pouvoir parce que boo boo looy wax ba perte assemblée doo mën a liggéey wala ni nga ni nga liggéey doo ko mën loolu moo tax la parti pouvoir dafa am obligation parce que moo pression ñëpp pour mën a def tout pour gagner élection yi loolu c'est tout à fait normal kon donc ñu réunir seen i ne leen ah ñun de bëgg nañu samedi bi ñu daje bu ñu dajee bëgg nañ ku nekk lu waaye am mu indi ñu fexe ba effectivement ñu financer suñu campagne loolu je pense que ñaari kii yooyu. bokkul c'est vrai que nag bu ay sénégal nekk ci ay jafe-jafe comme ça jaaxle génn seen i kër et tout Euh, tout le temps dañu war a gis autorité yi seen wet te yaakaar naa autorité ñu ngi def tout quand pour que population yi bañ a jax alors ki nga xamante ne nag moo fi nekkoon njiitu réew di Macky ginnaaw a giñ ko joxeñee baaraamu tuuma ci wàllum falsification chiffres yi ak wàllum dette tukki ci Sonko mu mel ni euh, gën naa contre attaqué waaye tamit euh, fexe ba weddi ma nan nga jàngatee tey ay kaddu ki nga xamante ne moo fi nekkoon njiitu réew. ah wax dëgg yàlla moom dañ ko tuumaal na xam nga ko ñu tuumaal pare na la yow doo fi tontoo wala doo wax parce que dégg naa sax ay chroniqueur ñu naan warul tontoo warul wax te ñoom koo ci ni sekki bi cere ji saf na mu tontu la donc am na président am na effectivement tontu mais d'ailleurs su fekkoon dafa bëggoon tontu def na ko bu yàgg président premier bi mu waxee yàgg na pourquoi mu tontu bi yoon parce que dafa ne Londres euh, ku si nekk ci ñun dafa am loo xam ni moom la la ñëpp nawee moom la lay nit ñi di fonke moom lañ lay jàppe loolu bu deñee nga mel ñi ñëpp ñu fàtte la moom mooy crédibilité am en tant que dirigeant politique nit ñi dañ jàpp ni au niveau international nit ko crédible la am xam-xam la ku ñu mën a dénk ay responsabilité ku ñu mën a diglu la ba tax na Nations Unies di ko responsabiliser 4P euh, Paris di ko responsabiliser ba tax au niveau mondial forum yi ñu koy invité fu nekk mais crédibilité boobu en tant que nit image boobu moom la Ousmane Sonko attaqué wane ni wax du wax ko du dëgg day maquillé day day day njooj njaaj mais moo tax moom biñ ko ko interpellé Londres mënu woon noppi i fallait que mu expliquer te li mu expliqué noonu mooy lim daan wax rek li Moustapha Ba daan wax Moustapha Ba ñun ñëpp daan nañ ko dégg fi ci chiffre li jëm ci euh, dette bi euh, ñoom fa ñu nekkoon si kat noonu di di ŋàññi Macky Sall bokk na ci fa bokk na ci milliards yi ñu tabaxee fa ñu nekkoon rek place ba ñu nekkoon rek mu ngi leen doon tontu waaw beneen bi mooy boo génnee gis fa stade Ablaye Wade soo génnee leneen ak leneen BRT TER tout ça yëpp a ngi am na ay réalisation am na bilan donte am na côté négatif mais am na aussi côté positif Macky loolu la wax c'est-à-dire que dette bi ma def def naa dette mais dette bi dafa financé le développement te c'est visible waaw léegi nag amaana bu ñu bisee parce que dafa war a dina jël ay technicien wala ay kiyam ñu génn chiffres yi wane pourquoi euh, ci ñoom jàpp nañ ni Ousmane Sonko li mu waxoon du dëgg loolu bataille la xam ni moom la ñuy xaar ci campagne électorale campagne bu o waxuñu campagne saaga saaga moom daamul amul pexe mais ay argument contre argument ñu xool exactement ku nekk na nga xalaat euh, effectivement population yi mën a xool kan lañuy woteel ak ku dul woteel. Assane Samb jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.